ko jàngatee euh, li sama borom dogal rek duñ nangu euh, mësuñu def pour ñu may bi vraiment tey da nekk la fête du travail on était vraiment on faisait la marche on euh, se retrouvait la bourse du travail bon on posait nos points d'alliance mais malheureusement avec la pandémie on peut rien faire on a quelque chose à faire maintenant devant nous. À, ah, en lieu place de tous les revendications. une revendication, une revendication la fondamentale. C'est ensemble nous luttons ñu xeex pandémie bi génn ci réew mi donc loolu mooy suñu revendication ren mooy xeex pour pandémie bi génn ci biir réew mi waaw dama ko jàngat ni euh, ci premier mai bi euh, président république dafa nekk dafa nekk le premier secteur général des travailleurs loolu teg mooy te ñun ñëpp la remplacé pour défendre liggéeykat loo ko jàngate euh, ma rafetlu nag ay mesures yu mu jël euh, jëm si xeex Covid 2019 mesures am na yu bari yu mu jël ñun en que cas en tant que syndicaliste ñun mënuñu ko dul rafetlu ko encouragé ko mu xam ne ñun tam aussi ñoo ngi jàppale ko pour que ensemble ñu xeex lii mu jël si biir réew mi effectivement parce que je vois que maintenant depuis quelques jours ah su may dox su ma dawal dama gis ñu si bare ñu ñoo teg seen masque donc la conscience mi ngi consommé wu si boppu liggéeykat yi euh, si boppu euh, nit ñi ñoo ngi consommé seen basque te foo dem da nga fekk ñu teg ay mesures saabu euh, gel et cetera donc xam naa ne jàpp naa ni peuple bi ñooy am conscience ni ñoom ñoo war a nekk les premier à être au devant de la scène pour xeex ko li président de République jël. yomba li ministre de la santé jël yomb docteur yi yomba en réalité président beeg docteur beeg yëpp lu ñu mën def def def te ñi def seen loxo du sotti donc il faut que les gens soient conscients de ça hein euh, vraiment ku si nekk nga xam ne yaa na wa yaa nekk sa docteur bopp euh, yaa war def yaa war def sa sacrifice bopp pour affaire mën a sotti ñu mën ñu génn si biir réew waaw président Euh, bëgg-bëggam la la def ak yéenam mais ma yaakaar man dama man dama yaakaar ni parce que am am na ay wax yu si am am na ay coow yu si am mais kooku ñi ko jox ñoo war def seen warugar xam ni président daf ko def pour jaamu yàlla pour jàppale néegu doole gi ñu def en sorte que loolu ñoon jox mu egg si ñoom ñu mu war a eggee te mu bañ am benn rëq-rëq parce que par exemple mënu ko gën a jox mais ñi koy yóbbu nag acheminé ñoo war am ñoo war am mat ak dal bu toll na nit ñi di sonn président génnee pour jàppal leen ñoom tam ñu def li si war ñu ah, mu génnee mu eggee si ñooñu ñu mu war eggee et c'est important aussi oui wax dëgg yàlla parce que temps yi euh, bor jiguñu hmm? bor su tegoo suñu kaw da ngeen metti donc il faut que il faut que euh, li mu def vraiment def na lu lu baax rafet donc ça veut dire que il continue plus son combat d' abord ñuy jéem a sauver peuple mais ensuite xam nañu bor su laxu soo si bar rek li des dafay metti loolu lay jéem liggéey ak naataam euh, yi nekk si Afrique pour que bor boobu lax seen baat bu nekk bor mu tuuti ndax xeex bi gën yomb si ñoom mun nga moom nag nag wax dëgg yàlla ñun fu nekk nii xaatuñu sax foofu travailleurs yi parce que suñu suñu problème mooy bakkun travailleurs d'abord mais su li jeexee ah on continue nos luttes xeex pour que liggéeykat pour améliorer la euh, les conditions de vie et de travail des travailleurs euh, si on ne le pas, on n'est plus de syndicalisme. Le syndicalisme égale défendre l'intérêt matériel et moral des travailleurs. Donc nous, nous y sommes et nous serons. Mais pour le moment, notre combat, c'est d'avoir ça. Mais quand on finit, on continue encore notre lutte. Inch'Allah. maa ngi leen di euh, féliciter ah di leen il faut ñu ngi def liggéey bu am solo hmm, liggéey bu Euh, wax dëgg yàlla euh, bu ëpp dayo euh, guddi bëccëg tout temps ñoo ngi si au chevet des populations pour sauver leen kon donc man dama leen di encourager di leen massaw hmm? en tout en tant que syndicalistes on ne que les féliciter les encourager ñaan leen yàlla xeex bi xeex ñun ensemble ñu mën koo réussir voilà euh, mon dernier mot d'abord euh, sant yàlla ndax jàmm de sant yàlla ndax euh, ren toujours koor ren sax koor gu doy waar la ndax ndaa ki amul dara amul loolu ñëpp duñ koy sant yàlla donc yàlla sa mborom la duñ koy sant bu ñu ko ñaan yàlla mu teggal ñu tiis bi bu ñu ko teggalee man damay ñaaxaat encore d'abord pour le moment nii dama continuer ñaax encore di euh, peuple bi dañuy continuer respecter consigne bi leen jox feebar ba dëgg demagul mi ngi fi mais suñu ko xeexee ensemble ku nekk nga def def li nga war def policier bi def nga war def gendarme bi travailleur bi ku nekk def def liggéeyam je pense que dañu réussir bi travailleur aussi dama leen di ñaaxaat encore ne ñun ñëpp aussi non seulement nañu respecté consignes yi mais ñu donne encore te seen liggéey ndax ñun suñu force syndicaliste moo di devant le patronat mooy travailleur bi respecté liggéeyam respecté euh, li mu war def te actuellement nii respecté aussi conseil yi njàng moom moo moo xam ne moom la président joxe pour que lii fi nekk joge fi ndax balaa ñuy wax suma waxu travailleurs yi seen condition de vie seen condition de fekk ni ñoom wér donc actuellement sama credo mooy xeex pour wér gi wér gi yaram ñëw dàq pandémie bi ñu retrouvé continuer effectivement à travailler. Voilà.